asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 30 octobre 2019 ñëw ci ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag moo xam sunu làmb la tey journal bi nga xam ne nii moo di record ku ci nekk daal xëy nga indi bi nga ne nii mooy mbirum làmb bu fekkente ne nag sunu làmb la woon dafa ñëw ci diggante ki nga xam ne nii moo di Tapha Tine ak Modou Lo wala boog diggante ki nga xam ne nii moo di moo Lo ak Ama Baldé la tax nag Tapha Tine yëglikaay bi ne fi mu nekk nii day Tapha Tine la ñu bëgg a def nag plan B feebar ndax nag comme mbirum ama fi mu nekk nii dëgër na te la ko dëgëral du lenn lu dul mbirum kase wala mbirum xaalis daal moo tax mu mel ni ki Tapha Tine fi nekk nii fa la lig ni ko laay bëgg a xool ngir nag jox ko ki nga xam ne nii moo di roi des arènes di ki nga xam ne moo di Modou Lo mu mel ki bu ñu demee ci yëglikaay bii nga xam ne nag moo di record moom record nga ñu xëy woon ñu Tapha Tine Tapha nag mu mel ni record ne na day ba leer moom quatre-vingts millions ya moom nangu na koo ngir jàkkaarloo ak ki nga xam ne moo di Modou Lo yëglikaay bi record a xëy tey ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne tamit record da caa ñëw Ama Baldé ma nga xam ne nag moom la ñuy wax diggante mag Modou Lo fi mu ne coow li ne ca gadd Ama moom li leer ba leer yëglikaay bi nee na licence bi koy may mu bëre ren moom dem na dagg ko fa nga xam ne nii day mooy ca CNG ba mu mel ni kon Ama yëglikaay bi ne mooy premier VIP bi nga xam ne mooy njëkk a wut licence am yëglikaay baa xëy ñëw wax ñu ko moom record waaye record itam ñëw na ci ay mbër yoo xam ne day jàpp na ne ñoom seen écrit yi sartu yu ñu teg wala lu ñu lal ñu lalli ko def la ñu bëgg a def record ñu ne ko ñooñu kan ak kan la record nañu ko ca jëkk moo di Balla Gaye numéro 2 Modou Lo Papa Sow ak Tapha Tine nee na ñii moom lees def ci seen écrit yi rek teg a def yëglikaay baa du loo xam ne tamit yëglikaay na ca ba tey ci wax jooju xam ne nag moom lu écrit yi def moom ànd ko maanaam daal du ñu xëtti ndigal écrit ñu ne ko kooku kan ak kan la mu ñii moom lees teg ñu wekk ko jaar jaar ca fañ ca war a jaar yëglikaay baa xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu kii moom dañ koo tegoon ba teggi ko teggi gan ko teggi nag daa mel ni day neexu ko wala ka ko def wala nañ ko defee jaarut aw yoon muy maawo ma nga xam ne moo doon entraîné bi nga xam ne moo di summi ñu ne ko maawo wàcce nañ la mu ne wàcce gi day kenn la rek xam naa ne booy kay ne te moom nag li muy jaawale mooy sama diggante moom problème ba mu am moom la jëlee yaay indi ko ci équipe ba ñu nañ na wàcce waaye boppam waaye jàpp na ne nag am na fa ay gune yoo xam ne ay doomam lañ te ay nitam lañu muy booy tawoon ak ki nga xam ne nii moo di bébba jeen feneen foo xam ne tamit ay wax dafaa am wala boog ay yëngu-yëngu mu mel ni ki kon ca faas la ndax nag ki nga xam ne nii day moo di Ali Sow di bàyyi Papa Sow moom jàpp na ne nii day ki nga xam ne nii moo di doomam ji di Papa Sow defut fët boo xam ne wala erreur boo xam ne nii moom waras naa tax ñu koy dàq fi nga xam ne nii moo di écrit faas ñu ne ko waa léegi diggante ba giri Ali Sow nee na li leer ba leer ne diggante Papa giri rapport bi moom amul benn jafe-jafe amu ci xanaa kay la am mooy dañ dul nag ay xarit ay copains yu toog di waxtaan te nee na bu ca problème amul sax mas gis kenn koo xam ne sol nga saw dal jéem caa dox nga xam ne nii moo di tànki jàmm ñu ne ko pour combat bi mu jël te ñëkk ko mu ne leen leer ba leer daal combat bi moom moom jàpp na ne Mbaye Guèye wala muy Tafa Guèye dinañ nekk ci nga xam ne moom la jël digganteem ki nga xam ne moo di sëkk waaye la dëggee numéro deux it ñëw na ca moom wax ca moom moom Aliou Sow daal nee na bu ñëpp meloon ni moom jàppoon ne lamb ji moom avancé du ko def yee ko wax du sama ay wax keneen koo xam ne nii moom wala fa ay wax juboon muy yokk énergie daa mel ni tey nag biram ñun ñëw na ca sunu lamb waxaat ndax nag xaadim gajaga moo waxoon ne day ni leer ba leer bés waxu teg ñoom ci gri ba moom loolu moom du ba rek Ama Baldé tey suba waxi noppi biram nag na loolu xaadim waxoon moom ñoom dala rek waxtaan nañu maag moom ba déggoo ñu waaye tamit moom biram mu ngay wax ne na diggante Ama ak Modou damaan sa fi yàlla moo tax nag fi mu nekk ni moom promoteur bi dinañ ko may taabu yaatu ba bu déggoo ka nga xam ne daal moo di ama waaye daal moom jàpp na ne moom ñoom li yàqu moom du jóge ci ñoom ba mukk mukk mukk moom mii nga xam ne moo di biram moo xëy wax noonu waa olympique de Ngor moom yëglikaay bi ne ren seen i écrit wala seen i écrit six combats fa am trois victoires benn match nul ak ñaari défaite yëglikaay bi xëy na ñëw ci écrit boobu nga xam ne moom moo di olympique de waaye dañuy dem fa nga xam ne ni tamit moom moo di ca Leewtoo TV Burxaan Wàddu moo fa ngar daajoo fi nga xam ne moo di micro ba wax la mu bëgg wax ñu ne ko Burxaan seen diggante ak Balla mu ne laajuñu ko tey suba waxi noppi askan ñee ko bëgg kon li leer ba leer na ñëw ñu bëre loolu moo fi des mu ne ko ki nga xam ne ni moo di Ama ak Modou mu ne Ama ak Modou moom fees fayam Modou cent cinquante millions war nañ faa jël li nga xam ne nii day moo di cent millions jox ko Ama Baldé ndax nag jàpp na ne loolu mooy li war a am moom Burxaan war waaye jàpp na ne ba tey nag Modou Lo moom mbër yi gën a sérieux bokk na ci waaye ñoo ci defet xam ne amoon nañ ko ci seen diggante ki nga xam ne moom moo di Lac de Guiers 2 dana Lac day du ñeexum ñebbi suuru ko yomb na waaye daan ko moom lu jafee-jafee jafeel burxaan wadd xëy di wax lu mel ni ki noonu bu ñu demee nag ca lambi simple ja wala boog ca Leewtoo point nag ñun ñuy xam ne day lambi simple ja moom la nga xam ne moo di commission nekk fa xam ne mooy ca CNG ba moom léegi kii di yax yu jub yi ki ni mel ni moom lañ ko dénk wala boog mu am mun nga ci bëgg am baat boo xam ne daal ña ko ko war a jox wala ña ko ko nar a jox mooy fa ya nga xam ne ñoom ñoo yore wàllum lamb ja te fii nga xam ne nii day moo di ci réew mi kon nag daal leer ba leer leer muy yax yaag muy tay sa nag ku mu ci mën a doon daal jàppal na lu ñu la jox ci làmb ji yàlla nañ ko doxal doxalin boo xam ne day dina nekk njiglaayal waa làmb parce que nag ñoom ñëpp ku mu ci mën a doon loolu dong la waa làmb di xaar ci ñoom waaye waa làmb yi ñuy xaar te xiif ko marko mooy combat VIP yi ñoom daal mu ngi jatuñu soccet di ñaanal promoteur yi ngir combat yi mën a taxaw mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu arène Babacar maa ngi lay nuyu di la di la di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba di la delloo ziar di la nuyu di nuyu internetu Leewtoo TV yëpp fu ñu mën a nekk si àddina bi rek ñu ngi leen di bëgg di leen ziar di wax ne que rek ak Leewtoo TV moom 100 pour cent làmb rek waa xibaar yu wóor te leer moom lañ leen di jox fii. Babacar nag dañ ñëw nag si sunu laam sunu laam te dafa xëy indi euh, ki nga xam ni mooy tafaatin Tafatine ay mbiram dafa mel ni mi ngi bëgg a neex man parce que li Nicolas bu mu doxee combat Modou Lo Ama Baldé Ama Baldé def surenchère euh, dafa dem bu plan B plan B nag mooy tafaatin nee nag propose nañ ko 80 million tafaatin nangu na pour bëreek Modou Lo si somme boobu. waaw tubaab ne euh, plan B olof ne moom bu mbul bañee làmbaay nangu. waaw loolu de defe naa noonu la war a demee parce que tamit euh, comme Ama ak Modou moom li wax rek combat la boo xam ne Sénégalais yi ñoo ko mos di réclamer te loo xam ne tamit yaakaar naa combat bu baax ci Ama nag mbër moom koy fay yaa ngi dégg ak loo bëgg-bëgg combat am nga bu fekkente ne nag promoteur ko mu def ko su ko mënul tamit mu kon yaakaar naa ne xëy na dañoo ci côté prix te tafaati nit adversaire potentiel la pour Modou Lo parce que mosuñoo bëri te jànq la kon yaakaar naa nag bu ñu demee ci tafaay itam dama naan mun du nekk njuumte ndax it boobu combat bu neex a neex lay doon kon daal yaakaar naa fi mu nekk nii ah mën na nekk sans tafatina ah, parce que tamit euh, yaakaar naa ne tey boo boolee tafaatin ak Modou Lo ci stade ñu war a bëri xalaat naa ne di nga di nga tëgg lu neex a neex daal yaakaar na parce que combat bu jaadu tamit pour man. Euh, am na solo Babacar nag journal bi tamit xëy na dala ki nga xam ne mooy Ali Sow Ali Sow soo leen ko déggee mooy euh, papa papa ñoo nag si diggante euh, papa ak ki nga xam ne mooy dirigeant écurie Fass yi diggante aussi papa ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux nee na Gris Bordeaux papa Sow am na duñu ay xarit mais noo bokk écurie dañuy bokk entraînement mais nag duñu xarit duñu demalante. waaw duñu ay xarit ñoo bokk écurie waaw xarit moom dafa jafe xarit li tax ñuy wax xarit du nag mooy papa papa nekk tamit. ku bokk écurie Fass mën nañ ko waxee noonu parce que yaakaar naa léppam ci Fass la ah li leer ba leer nag kanta Papa Sow ci biir écurie Fass ak nekkinam ak taxawaayam yaakaar naa loolu ñoom ñi nga xam ne ñoo yor seen écurie rek ba tey la ma waxoon rek ñoo ci wax def ci liñ ci war a def ba nga xam ne nii ku ci nekk rek la nga moom dinañ la ko jox sa cëyit nga téye ko sàmm ko ñu sàmm ne la ko bu dee la kaara Gris ak Papa la nag comme li mu wax ñoo bokk écrit bi mais du ñu ay xarit xarit nag dafa jafe comme li ma waxee sànq xarit moom yombul nit ki mën ngeen a bokk liggéeyukaay bu liggéey yootee ngeen def ko ba mu rafet ba mu nice mais nag say xarit mën na bañ a nekk fa ngay liggéey yaa ngi dégg loolu nag bu amee xarit mooy ki nga fréquenté ki nga xam ne lu ne ci yow fanaan lu fanaan ci yow yendu ci fanaan ci moom lu yendu ci yow yendu ci moom sa lépp da koy xam nga xam léppam ngeen di deflante lépp bu naqar amee nga gis ko bu bànneex amee nga gis ko yaa ngi dégg lu baree bari ngeen seq ko ku ne nag nga ko yaa ngi mais du tere nag koo bokkal liggéey fu ngeen di entraîné fu ngeen di liggéey lu ngeen nangam di gisante chaque jour seen diggante itam dañ cay soxla mu rafet rafetaay bi nga xam ne nii ku ko gis sax dana ko jaawale xarit loolu soxla nañ ko ci diggante ka suñ jógee nag suñu laam nañu dem fi nga xam ne mooy record record nag xëy dafa dafa xëy te def benn gëstu ne daal am na ay VIP daal am na ay charte yoo xam ne dañ koy teg si écurie bi mais daal ñoom dafa mel jëfeewuñ lool mooy ki si mel ni comme Balla Gaye Modou Lo Papa Sow ak Tapha Tine parce que écurie bi suñ tegee ay charte ñoom dañ koy teggi def daal lu leen neex ah waaw loolu de bu dee noonu ko record waxee noonu la demee du yoon dafa ko ci am benn code de conduite xam ne ku ci nekk rek buñ ci ko rëdd ko ko ku nekk war a respecter sart ya moo xam mbaru cent millions nga wala mbaru dix mille francs nga kon defe naa loolu mooy li war a am kantaa nag ñooñu ñu lim noonu dañuy xëtt seen digale écrit yi yaakaar naa ne na daal du lu war a am parce que boo mu rafet bëgg mu tege ci aw yoon yaakaar naa ne boo xëttee sart ya moom yaa ko yàq te nag kër boo cay dugg ndey ko ma faal bul bëtt mukk di jaar ci ñag ya wala ci yenn kii jaaral ci buntu kër ba rek moo gën a wóor loolu gën a wóor Babacar li nga ki nga xam nag moom mi ngi tëral mi ngi taxaw si charte yi nga xam ne CNG teg na ko mooy ki nga xam ne mooy Ama Baldé parce que journal Record mi ngi xamal ni Ama Baldé mooy premier VIP bi nga xam ni jot na licence am waaw loolu de bu amee itam yaakaar naa ne ci farlu la bokk rek ak kon di wane ne que ren dafa pare ngir bëri parce que ku dagg licence moom surtout heure bi yaakaar naa ne kon ama jël na décision wu bëri kon nag lañ koy wax moom wala li ñuy wax daal mooy kon ku ci ne rek dem nga renouveler sa licence parce que nag euh, daas fanaan la ñuy wax. fast track waaw fast track kon ama fast track na licence ba moom looloo wóor. waaw ko suñ jógee si record dañuy dem fii ci xam ne mooy Leewtoo point net Leewtoo point net li nga xamante ni CNG am na beneen commission bu bees commission bu bees bi nag euh, Yékini moom lañ ko jox commission bi des euh, lépp loo xam ne wàllu lutte simple la moom lañ ko moom lay moom lay moom lay def foofu noonu donc Yékini lañ ko jox ak yeneen nit ñoo xam ne ñu yëngu si lutte simple yi Babacar. waaw yax ya de buñ ko déggee dénkee lu jëm ci wàllum lutte simple mu war ko gérer ci làmb defe naa dañoo dendoo dañoo delloo mbat su ca ndaala rek ndax defe naa ne lutte simple moom ku dem ba ni seer yaa ngi dégg nekk ci champion d'Afrique lu la nga def ko ci tey bu demee ba bëre ba bàyyee bëre retraité nekk fa membre ñu dénk ko loolu kon dañ koy ñaanal yàlla loolu ñu ko dénk yàlla na ko yàlla na am ndam. commission lañ ko dénk waaye lu simple bi Raymond ko jox. mais benn ah, ah, ah, ko ci jox benn pàcc ci li simple bi waaw ba mooy li may wax rek dërëm bu génnul gaal gi la que yaakaar naa ba tey lépp ci fii la sotti ci ak def daal ku ci ne lañ la dénk yàlla ñu la ñu ko dénk am ci satisfaction ak tamit ña tax ñu dénk la ko. Babacar suñ jógee Leewtoo point net nañ si Leewtoo TV Leewtoo TV nag dafa xëy dala ki nga xam ne mooy Bourkhane manager Boy Niang wax na daal si digganteem ak ki nga xam ne Boy Niang combat boobu Boy Niang ak Balla Gaye wax na tamit combat Lo ak ki nga xam ne mooy Ama Baldé. waaw Bourkhane day waaw loolof naan ku laaj sa kanam mu dël xëy na noonu la ko def moom daal wax na la mu bëgg ci diggante Balla ak Boy Niang ndax nee na ñoom laajuñu ko muy askan wi ñoo ko bëgg ah, askan wi nag. ñoom ñooy Cissé waaw ci diggante Balla ak Boy Niang ma ne dama naan bu ñëwee tey xale yeeg mag ñi dañoo war a bëre loolu dama naan war dama na nekk Balla Boy Niang may ko sens yaa ngi dégg diggante Ama ak Modou la mu wax jàpp na ne bu ñu fayee Modou cent cinquante millions war nañoo fay Ama cent millions waaye loolu tamit ñun duñ a wax li tax duñ ca mën a sori mooy promoteur bi mooy fay moom moo xam mbër mu ne lu mu jàpp ne lii la war a jar mu proposé ko ko mbër mu itam moom mooy fayee ko moom mooy jàpp ne lii laa war a jar loolu nag kuy jaay kuy jënd rek waxtaan ba déggoo la bu amee ku ci nag fayeku waaye nag du ma ne li Babacar di jar li Ndeye Coumba di jar la Babacar di jar wala li yàggamar la ay di jar la ay say jar fu njum te mën na faa am bu keroogee Babacar si kàddu yoon leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay Mère Sow sama doom Mouhamed Diouf nuyu Dadigé nuyu Astane déjà Brahma depuis Parcelles Assainies Chéri Khadija Diallo nuyu samay doom Mame Diarra Penda Bébé Fallou Berokaya Moussa ak Eva Diallo euh, nuyu aussi euh, Aïda Diouf ak ki nga xam ne mooy Aïcha Faye madame Niang. waaw ñu nuyu ñëpp tamit comme ni nga ko waxee rek di siyaar ñëpp di ñëpp jàmm di nuyu Aïcha Faye Aïda. yàgg maar ak doomu ndeyam ba ca Chine nu mu tuddati sax yàgg ah aada bës

Lamine Konaté ngi nii gaa yëpp ngi nii Ali ak nan Rubi Fall Mister Aji su may lim du fi jóge ak Gueye TV ñoom ñëpp a ngi nii Big Show ah gaa yi waaw ñun ñëpp a ngi nii ah dañuy suivre à travers le monde Papis Thiam Abba Sall Lo Pape Pape Lo Lamine Konaté lim naa ko léegi Mamadou Sakho. ñëpp nuyu naa leen ziar naa ñëpp ñaanal ñëpp jàmm du man a ñàkk parce que nag olof ne na xerew téeb sàkket da cay daru te nday nday kumba booy dóor ku ñëw di la sotle jàppal na sa mbokk la te ñooñu sotle ci li ñuy def kon yàlla na jàmm yàgg.